deuxième question bi mooy euh, maanaam euh, gis nañ ni da nga rendre sa démission léegi nag ñu bëgg nga leeral ñu maanaam lan moo waral maanaam sa démission boobu ndax da ngaa am da nga gis lu la naqari wala maanaam da ngaa sonn wala daal maanaam bëgg nañu daal nga leeral ñu exactement lan moo waral démission boobu. waaw bi yaakaar naa man waajoon naa ko dugg yàgg na jamono bi fi ak waat ak jëkkee ñëw mooy bi amoon gendarme yeeg coow yu bëri jéem tegal leen ñu ne nag après damay démission mais ay nit topp ma boo démissionné da ngay fragiliser bi parce que comme ak ni nii su ko defee ñu ngi coow boo démissionné day am bunt bu mu jaar jël ma accepté continuer waat. ñu demee ba ci élection locale yi passé newoon naa leen bu élection yi jàllee na politique la woon rek ci biir leen damay démissionné bu fekkee gañewul hmm. parce que sonn naa ci coono boo xamante ni toogaat di continuer am ñu ma convaincre mo so démissionné day mel ni liñ la voté lul moo tax nga démissionné kon continuer bàyyi wàll li ma naqar yëpp continuer mais xam nga aussi tamit di nga liggéey ba da ngay toll à un moment donné liggéey bi métti na trop parce que li tax mu métti mooy plus de 2000 clients kenn kuy jot facture sama numéro téléphone demaa la man ci lépp lu ko métti rek dina la woo téléphone ku ubbi sa robinet xëy na dina la woo téléphone nekk loo xam doo moom sa bopp ceewɗe te aussi dama nit koo xam bëgguma nit ñëw ci bureau ba seet si ma gisuma ku am problème facture maa ko war a defaraat te nag mënu ma tous les jours matin huit heures midi trois heures quatre heures dix heures dix neuf heures yëpp ma toog ci bureau parce que li ma fay fayeeku lu ndaw la loo xamante ne jaar prime la rek il faut may def yeneen liggéey nag pour sama bopp pour mën a gérer sama bopp de ce fait que li nit ñi ñëw di ma woo téléphone wala di ma seet fekkuñu ma fa daf may metti te mm-hmm. aussi tamit mm, zone baykat laa man baykat laa doomu baykat la xaalisu mbay laa takkee soxna mm-hmm. moom laa ngeen dee man baykat laa baykat laa jàppe sama bopp mm-hmm. te nag day dem ba wàññi sama liggéey bi ma waroon na liggéey ci mbay ma yor tool foo xam ne presque ça fait plus de trente kilomètres su ma xëyee taal sama moto dem bayi une heure jotee wala midi ma wàcc ñu bisiwaat pour compte si bureau bàyyi bien dafa mujj metti ba aussi nag nit booy liggéey dem ba affaire bi diis ci sa bopp mm. bul saboté mm. bàyyi ñu xool keneen ko xam ne na ko yor mm. parce que bu fekkee na may liggéey samay tool temps ba mu fa war a toog tooguma ko fa def fa investissement ba pare la bi ma war a def ci bureau bi di leen liggéey tamit toogatuma ko defatuma ko kon maa ngi tardel bureau bi ñaari tardement yooyu yëpp mën na ma dal loolu laa bañ nag ma ne naa décidé la xam moom laa bëgg liggéey sama bopp ma continuer fa li nga xam askan ko moom ma delloo ko ñu xool keneen koo xam moom gën a compétent gën maa jub gën maa wóor ñu dénk ko mu continuer nekkul luñ ma def wala lu ma maire def wala sous-préfet wala encore notable bu ne ci dëkk wax ma lii noonu sama liggéey moo dem ba tënk ma mënuma liggéey li ma bëgg a liggéey fële ak li ma bëgg a liggéey ci bureau bi il faut ma bàyyi ci ñaari benn ma décidé nag bàyyi bureau bi nga xamante ni ñëpp ko bokk na nga xam maa ko moom ak sama bopp ma continué ci loolu lii moo war démission waaw ci biir démission boobu parce que itam euh, man tey taatal naa ci population bi tey tey ñi ëpp ci population bi mm-hmm. li ñuy wax mooy maanaam ñoom d'accord ñu ci sa démission mm-hmm. ñoom bu ñu sañoon ah maanaam yow da ngay continuer maanaam gérer ndox mi na ko gérer woon euh, ci sa biir développement yi tamit dégg naa nga wax ni maanaam euh, mel na ni maanaam gestion bi nga gérer ndox mi manam coono yi moo ëpp am-am bi ci ni mo la déggee parce que mel na ni maanaam li nga waxee maanaam li nga xam ne maanaam ci sa ak sa yelleef manam nekkul loo xam maanaam lu lu la fa mën a téye la ba tax manam liggéey say liggéey moo la gënal maanaam euh, nga toog foofu di liggéeyal askan wi amaa nag liggéeyal askan wi moom maanaam euh, maanaam loo ci loo ci mën di am rek manam la nga ciy am ëllëg ci sa pay pay yàlla ak ñaanu doomu aadama manam mo moo gën loolu te it nag da di boo xam ne maanaam parce que nit ki moom lu muy liggéey war na cee mën a gis boppam. war na cee mën a gis boppam loolu mu mel ni maanaam manque d'organisation la wala wala forage bi maanaam ndox mi moo man la générer maanaam ressources yoo xam ne yow di nga ci mën a gis sa bopp ñeneen ci liggéey gis ci seen bopp. waaw xam nga liggéey lu au départ presque bénévolat la woon man bi may commencé di relever vingt cinq mille lañ ma doon hmm. at ñu dix ans relevé naa sama maximum maximum salaire soixante mille comme soixante de mille cinq cent kon liggéey bi benn voie la mais du lu ñu lay fay présidence bi ma géré ne ak gestion bi li may fayeeku ci at mi yëpp motul un million deux cent cinq douze mois yi motul un million deux cent cinq bañ naa ba bon yi ma bind motivation laa ci bind motivation des travailleurs li dul salaire parce que salaire de base minimum ëpp na loolu man dama ko def pour bénévolat pour liggéeyal sama askan mais nag di bi bénévolat boobu di nga toll foo xam ne nag imagine dans une entreprise légale kenn mësul gis le directeur général tolloo man bi ma ñëwee dama wàññi sama salaire yokkal liggéey yi ba fi mu ne man ak sama caissière ñoo tolloo salaire parce que du xaalis laa fay wut mais dimbali ak wane sama njàmbaar ci kanam askan bi mais nag di nga toll foo xam ne nag voilà da nga naan fii laa mën a yem nag def naa loolu juróomi at relevé naa dix ans président gestionnaire cinq ans ne nag wàcc leen ma ne sept ans. loolu leer na loolu moom leer na waaye daal demande bi nga xam ne moom laa lay yokkal. Hmm. muy demande population yi. Hmm. population yi moom ah, demande bi ñu demandé mooy Matar moom continuer ci dañu dox ñu jéem a xool ñu réorganiser wu xoolaat maanaam jafe-jafe yi nga xam ne ndox mi am na ko maanaam ñu jéem wut ay saafara ci jafe-jafe yooyu bu ko defee ñu jéem a réorganiser wu waat xoolaat staff bi euh, comme ni nga ko waxee nii salaire yi nga xam ne maanaam ñi nga xam ñoo gérer ndox mi loolu lu ñu mën a waxtaanee la ba képp ku ci liggéey man cee gis sa bu ko defee tamit problème yi nga xam ne am na ci biir commune bi ñu jéem ko saafara mm-hmm. parce que comme ni ma ko waxee rek yàlla dogal na am na ñu ay ingénieur yoo xam ni fi nañu dëgg biir noto tey seen xam-xam ci loolu la màcc kon donc yaakaar naa ni war nañu mën a am ay solution ci problème yi am ci ci gestion ndox mi. waaw foofu d' accord naa ci mais ci kaw d' accord gi mooy rek li koy indi mooy comme sama démission bi na Matar dem un ingénieur ñëw ak yeneen technique def nañ auditionné nañ réseau bi yëpp diagnostiqué xool lan mooy problème ñu ànd saafara ko ci biir saafara boobu aussi tamit mën nañ cee saafara waale. gestion personnel bi xool nan lañ leen di fayee bañ gën lañ leen di fayee bañ gën a gën a gis seen bopp ci liggéey bi te aussi tamit ñu respecté liggéey ba nga xamante ne liggéey bi dina ko mën te du doon benn problème mais loolu yëpp nag mën na nekk mais sans motard motard dem beneen équipe ñëw defaraat loolu mën na nekk c'est possible mais toujours rek c'est dire à ce que moom motard dem beneen équipe ñëw def waaw loolu moom euh, leer na ñu ngi ko si jaajëfal ngi lay jaajëfal ci ci ci tontu yi. Ah, euh, aussi tamit euh, di la ñaax a ah, aussi nga bàyyi xel ci li ma la wax parce que la population moom. Mm-hmm. maanaam sa démission moom moom rafetlu ko ñu mm-hmm. ko. sa démission moom gënalu leen li leen gënaloon mooy yow da ngay fii nekk continuer ñu jéem a ah, lay organiser waat la di la di rafetlu euh, mm-hmm. ak tontu yu leer yi nga ñu tontu. lépp nag ngir maanaam leeral sa askan rek. ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax di ñaanal suñu suñu. caméraman bi nga xam ne moom tamit aussi mu ngi liggéey liggéey mu ci ayib ci biir commune bi ah, ànd ak essentiel commune dina bëgg jamaa bëgg maanaam lépp loo xam ne maanaam xibaar la rek ñu koy gën a jege askan bi di leen koy indil di leen wax ni nga xam ne noonu la xibaar bi amee pour informer pour éveiller les consciences